sama yaay jee sama yaay ji gisuma ku ma lay mën a weccee yow mi nga ci man yow mi nga wu ci man yaay booy sama gàlla yaay ja gaaw te gën No.

ñun ñii de ay gawlo lañu. wallaahi man boo gis sama kanam rek nga xam ne xam naa leen. Mhm. man maa ngi liggéey deux ou six. yow xamoo ko ne dañ ko miin lool. man gawlo la <laughs> dañ ko miin. dimanche boo jàppee télé nga fekk ma. wallaahi xam naa la bu baax man xaw ma politique. Mhm. man xaw ma lii. boo gisee ne ñu xam lii nag. am na lu tax. ndax boo gis dafa am sama. Mhm. awa si mooy sama xaritu rakk bi ki ñoo ko ndey baay. moo ko dugal ci lii ba keroog. bu ñuy dem tunda la femme ñu dem. mu fekk foofu ma dem mu sànni. su ne gaw lañu. suñu xamuñu projet. dañu xam ne dëkk rek ñaar. waaw waaw. damay damay gaw waaye nag ma dem politique nag. ah moo ñu dooleel de. loolu nag moo tax nag. ñëw. duñu bàyyi ba yaay de. walaay ndeysaan. ñu ñëw ci projet bi. ñu tàmbali tey. lu mu def nag yombul de. ndax ñu bëri dañuy wax fekk du ñu def. indi leen seen carte. foto leen. indi leen seen xaalis. waaye doo gis dara. ñun kat bu fi ñëwee. mu tàmbali. bu ñu xëyee te dañuy woo ñu ne kaay leen loo leen bëgg ñu ne frigo la ñu bëgg ñu ne kaay leen ngeen jël seen frigo maanaam moo diggee li nga def yombul jël frigo ndax bu doon keneen la woon da ngay bokk sa xaalis wala nga bañ sa xaalis bu tey doon bitim réew nga làq leen foofu waaye defoo loolu da nga taxaw jàppale sa borom kër nga taxaw jàppale jigéen ñi te bu doon ko toog waxee baaraam waaye fu ñu toog nii yaa ngi toog fu ñu taxaw nii yaa ngi taxaw nii yaa ngi mar yaa ngi xiif lekkoo naanoo pour ñu jàppale ci yéen ma ne lekkul naanoo taxaw rek naa toog bu toogee waxee baara tamit a continuer waaye li nga moo fa nekk mu taxaw jàppale jigéen ñi kon li ngay jàppale jigéen yàlla dina a jàppale ndax léegi kenn bëgg ko léegi ñaar même ñun gawul sax dañoo bëgg a bàyyi ñaar liggéey ñu tamit ndax da ngeen a sonn yéen jeex suba rek ñu la foor indi ñu la foor indi loolu baaxul ndax boo liggéeyee di nga am boo amee nga dimbali say njaboot su ko ñu mën a tekki ñun tamit ñëw nañ bu ñu ñëwee tamit wax dëgg yàlla ñu gis doole ñu fekk na ci macha allah jigéen ñu bëri ñu fi te képp ku ñëw bu boo boo inscrire boo dem di nga yóbbaale li nga bëgg di nga yóbbaale firgo di nga yóbbaale ceeb di nga yóbbaale diwlin hmm, di nga yóbbaale télé même kër yaa ngi fi ah, oto yaa ngi fi nga ah, dal ko doon dégg waaye fi nga mosuma koo gis maa ko dégg nag ah, waaye li ma ñëw fii hmm. li ma gis doy na ndax léegi kenn mën ndax kenn boo taxawee def télé wala nga wax ci whatsapp wala ci ci ci facebook yi

ndeysaan doomi réew mi yëpp macha allah mm-hmm. ñu ngi koy ñaanal yàlla jàmm ko la man ngi mm-hmm. sama financement la mm-hmm. benn congélateur man na lépp kii man lañ ko financé waaw ñun nag suñu base moom mooy Géejawaay waaw mais ñu ngi dëkk région de Matam mais ñu basé wu ngeen basé macha allah maa ngi ciy woo tamit sama mbokk jigéen ñëpp maa ngi ciy woo aussi waa Fouta macha allah plus particulièrement waa Seedo suñu présidente taxaw njaboot foofu mooy Mati Diop macha allah maa ngi ciy woo maa ngi waa Fouta yëpp daal macha allah waa région nga bokk si dem Guèye laa ñëwoon. tey nga fi mas a ñëw. nga ñëw fi tey bindu tey. ñu jox la tey. bindu tey am tey yóbbu tey. tey lii <laughs> waaw lii de fii rek la am waay. waxaatal loolu waay. yëpp tey. Uh-huh. sey waay macha allah. yaay ja gënta gaaw. macha allah. maa ngi ciy gërëm tamit sama présidente bi sama yaay di ñaaw ji macha allah si sa jëy na ba. ndeysaan lii bu baax nag di ko ñaanal moom tamit yàlla jàmm di ko sax. amiin ak wér ak wér. amiin yaa rabbi bëgg bëgg na ci waa réew mi yëpp macha yàlla yàlla guddal fanam. yàlla yàlla

lépp a ngi fi ceeb yaa ngi fi diwlin yaa ngi fi turgo yaa ngi fi kër yi scooter yëpp a ngi fi oto yi macha allah kontaan nañu ñun tamit ñëw nañu ñun tamit ñëw nañu fekk si te bokk nañu bokk nañu bokk nañu daal firgo ku ñam indi ko ñam ko yóbbu léegi léegi am nañu lépp Madame Modou Gueye